على الحاد الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبين بالشأن إلى يوم الدين أيها المتابعون في إساءة خسيد أونلاين رجحنا مرة أخرى في برنامج من حاج الآبدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن مدن بيتام yadda allah wa nasara bokk auditeurs yi rajo xasid online yéen ñi ñu topp ci émission bi ñuy tudde min xaajul abidin ilal janna dellu si nañ weneen yoon ci seen émission bi di leen ndokkeel di leen ñaanal ci yéen ñaan dinaa bi ñu sant yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam dellu waat ñu ko baaxoo def ci dimanche yi weesu dimanche yëpp ñuy waxtaan ci mbirum virus corona te mooy virus corona bi nga xam ni moo daj àddina mu mel ni sunu tomb tey dañoo bëgg a waxtaane li ñuy tudde xallul jaay atu corona أو حل الجائعة فيروس كورونا حل الجائعة فيروس كورونا مانام نير سوليسون تي كريس اكونومي بيغا خامني مو ام تي حول العالم مي دال موند انتي ني بغا اندي نون القران جيسه bu crise amee lan moo koy solutionné moo tax ñu tuddee mawdu bi xalul jaay atu virus corona ñuir solution ci crise bi am te ñu ñu tuddee corona waral ko xam ngeen ni balaa booba crise bi li ko indi am na ay sabab yu bari waaye xam ngeen ni ma koy faral di waxee ci Occident xalaat bi ñu am ci réew yi Afrique yi xalaat bi ñu am ci lislaam ndax bu leen fàtte ni daanaka afrig moom moo ko gën a ak fukki loxoom moo gën a dund l'islam mais Occident dafa am nu ñu gisee l'islam am nu ñu gisee réewi Afrique yi loolu moo tax ñu planifié woon bu yàggoon ci ni dañoo xalaat dañoo am xalaat ci li ñuy tuddee xasmatul axlaax awlal alam xasmatul axlaax awlal alam loolu dañ ko planifié woon ba teg ko mooy mondialisation li de tuddee mondialisation de valeur loolu ñoom dañ ko xalaatoon ba teg ko mondialisation crise de valeur boobu le mooy xasmatul axlaax awlal alam dañoo xalaatoon ni ngir ñu am li mu bëgg faw ñu mondialiser alfasadul axlaax mooy crise de valeur ñu ñi dootuñu am culture dootuñu am jikko yu rafet dootuñu dootuñu loolu biñ ko planifié di ko dox ay at ñu yàgg suñ borom mi nga xam ne moom dara ump ko te mooy borom kàttanu fépp daal dina indi li ñuy tuddee virus corona awlal alam te mooy li nga xam ni mooy corona bii nga xam ni mën nañu wax ni àddina bépp la waabale bayiwul fenn virus corona awlal alam nga xam ni bu ñu xoolee coronavirus bi ngeen baal ma ni mu daje addina bi kap bayiwul benn ruq bayiwul fenn ñoom it noonu lañ bëggoon a mondialiser wala noonu lañ bëggoon fexe ba ñu mondialiser seen xalaat yi yi ñu am ba ñi nga xam ni lislaam da leen a sax ndox mu neex dugg ci seen xol dëgg-dëgg ñu di ko wàññi ci seen ngëm ba lislaam ñu ci bari jàppeetuñ ko lu rek benn texte buy digle ko tere surtout alquranul karim bu ñu tàmbalee ca mamlakatul arabiya as saoudiya xam ngeen ni bu ñu seetee abdallah bu yàggutoo njaay jox na fi jigéen loxo nekk jabaru benn président benn réew mu ne ko jàpp loxo en tant que koo xam ni yow yaa jiite xiblak jullit ñi yow yaay njiital xiblak jullit ñi ba tudde sa bopp xaadimul aramayni sarifayni nga tudde ko sa bopp Mustafa alayhi salaam ma nga xam ni bi mu ñëwee fekk asmatul axlaax fii makkatal mukaram jikko yu yàqu yu dajale yu waabe bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy yonent moom ak alayhi salaatu wasalaam mooy dafa fexe ba delloosiwaat nit ñi jubbanti leen orienté leen teg leen ci alal kitaab wa sunna ba xasmatul axlaax ba fa nekkoon mu tax yiir ko soppi ko dal di fay indi makaarimal axlaax Moustapha moomu alayhi salaatu wasalaam keroog bi nga xamee ni jigéeni Makka dajaloo nañu ñëw bëgg a def ak moom mu baaya a mooy jaayanteeg moom ni ko dañoo bëgg a jaayanteeg yow ci lislaam yàlla dogal góor ñi buñ daan jaayante dañuy waaxu ba ci yonent bi ku ni joxe loxo jigéen ñi keroog ba ñëwee yëkkati seen loxo jëmee ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam Moustapha alayhi salaam dañu leen inni laa usaafihu imraatun abadan abadan abadan man Mustafa alayhi salaam duma jox sama loxo bi jigéen du sama soxna du sama maxaram abadan xalaatuma ko ñu dem ba nga xam ni ki jiite xibla jullit ñi dem na ba am complexe ci kanamu benn président ba tax mu ne jàbb loxo soxnaam kon loolu moo xam ne ñoom dañoo bëggoon a mondialiser li ñuy tudde asmatul axlaaq xawlal aalam ce mooy mondialisation biñ bëggoon ci crise de valeur tax na ñoom soldaaru addina bi réew mu ne wàcc nañ fa yenn réew yi bañ demee ñu imposé leen mbirum góor jigéen ni leen for force da ngeen koy accepté may leen seen liberté ñu seet réew yi nga xam ni lislaam a fay dox nga xam ni lislaam dafa teg jigéen palaasam teg góor palaasam ñu dem ci réew yooya ñu leen ngeen di itlaax jigéen ñi faw ba tax na réew moom mu tudd muy mamlaku muy mamlakatu xarabiya ak saxudiya boo xoolee dañoo joxoon jigéen xàq ba jigéen dawul dawal oto léegi am na ngóor su fa nekk nee na jigéen ñëpp sañ nañoo jàngi oto di ko dawal soirée daa sant daawu fa am ngóor sa nee na comme neex demal soirée ji jigéen daw daaw fasal tubay tubaab di watar watari ci mbedd ma ngóor sa nee na comme neex solali tubay tubaab di watar watari ci mbedd ma boo demee boo demee mamlakatul xarabiya as saxwadiya loola léegi def ko fa du dara kon loolu moo xam ni dañoo bëggoon a mondialiser jikko yooyu malheureusement yàlla xëpp leen tooke joo xam ne tëlatuñ ko nag xamatuñ fuñ jëm ak moom yàlla xëpp leen tooke joo xam ni xamatuñ fuñ jëm ak moom tooke ja mooy lan ah mooy virus corona virus hmm, corona léegi nag bi nga xam ne ni jaay bi am na ba noppi mooy crise bi am na léegi lan mooy xàll bi lan mooy solution solution bi du dara lu rek taw ba tuub dellu ci suñu borom mi nu bind te moom nu rabbi situ ba jàlla ñu ko yàlla tuubiru bi noo ko defoon dootuñu ko def loolu rek mooy solution amul beneen gaa ñi nga xam ni dañoo dëkke jaamu yàlla alquran da doon misal ni sama jaam ñi nga xam ni ñoom daal dañuy jaamu seen borom duñ ko bokkaale ak dara sun borom ni yemuñu ca duñ rey bakkan bi yàlla rëy wut yemuñu ca duñ njaaloo mu ne te ñoom sax daal am na ci ñoom ñoo xam ne sax buñ rëccee ba def ci yooyu benn ci ñàkk tayef dañuy daal di daw dellu gannaaw ni yàlla baal nu tuubi ruubi dootuñu ko defati moom la alquran di misaal li ilaa man taaba wa amana wa amila amalan saalihan fa ulaayika yubaddilaahu sayyiaatihim asanaat wa kaana laahu xafuurun rahima ma nga furqaan suñu borom ne ba des sama jaam ñi nga xam ne jaam ñi nga xam ni dañuy jaamu seen borom te duñ ko bokkaaleeg dara duñu njaaloo ci tayef duñ rey bakkan bu yàlla rëy wut mu ni saa buñ ko defee te tuubuñu ko danaa leen mbugal mu ni waaye nag ñi nga xam ni tuub nañ te dellu si gannaaw man yàlla duma leen def dara dama leen di jéggal rek duma yem ci jéggal leen sax waaye bàkkaar bañ defoon ba di ko tuub man yàlla dama koy taxyir mooy dama koy soppi léegi aw yiw bàkkaar ba sax léegi dama koy sensé def ko aw yiw boole ko yiw yi nga xam ne moom lañ jëfaat gannaaw muy tuub gi ma boole fay leen ko ilaa man taaba wa amana wa amila amalan saalihan wa amila amalan saalihan dañoo tuub ba noppi wañ ko di jëf-jëf ju baax mbaram yooya gaay ulaayika yubaddilaahu sayyiaatim asanaat seen ñaawteef sax dama koy mujj soppi aw yiw muy ndax man yàlla maay xafuur maay raxiim moo tax yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam waxoon ñi ni ittaqillaaha ay suma kunta wat bi i sayyi'atal asana tamhuha wa xaaliqi naas bi xuluqi asana mu dellu si waat ci li ma doon wax léegi ci makaarimal axlaaq sallallahu alayhi wa daf ni képp kenn ci yéen rikkuwaay na ragal yàlla fu mu fi mën a ne mu doon kenn mu doon ñaar lu mu ruqe-ruqe lu mu lëndëm lëndëm na ragal boroomam bi ko bind te moom ko ay sukkunte la wax mu ni saabu bu yàlla dogalee nga juum ba def aw jongalang yonent bi nee na gaawal daal di tuub rek loolu foofee nga taxawoon defub safaan mu ne gaawal daal di def fa lu baax fa saasa rek mu daal di far lu bon la nga defoon lu ñaaw la nga defoon ba mu set wicc mu ne maa ngi leen di dénk ngeen fexe woo jikko woo jikko ju rafet te di ko jëflanteeg doomu aadama yi maa ngi leen di dénk ngeen fexe jikko yoo jikko ju rafet di ko jëflanteeg doomu aadama yi mu del waxaat moom yeneen bi sallallahu alayhi wa ni kullu ibnu aadama xataa wa xayrul xataa'iin at-tawwaabuun sallallahu alayhi wa sallam nee amul benn doom aadama bu parfait sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee benn jaam bu parfait amul mun amul benn jaam bu dul ni di nga tooñ borom bi bi la bind moom la jaam boo seen muy dem dana tooñ yàlla mi ko bind te moom ko mun waaye gis nga nag jaam ñépp jaam bi ci gënal yàlla mooy jaam boo xam ni saa bu tooñee ni yàlla baal ma dootu amati tuub naa ko tuub bi sallallahu alayhi wa sallam nee jaam ñëpp jaam bi ci gën jaam boo xam ni saa bu tooñee boromam ndax bu ñu nee tooñ yàlla mooy yàlla bu ñu ko xasee wax mi bari seen xel day dem si diggante góor ak jigéen ci njaalo fekk déedéet mooy yàlla sax du lenn lu rek yàlla digal la defoo yàlla tere la bàyyi mooy yàlla ngoog ak lu mu mën a doon rek mooy nga yàlla. mu ne nag waa jooju nga xam ne moom dafa mooy yàlla mu ne koo séen ku ne dana ko mooy waaye nag ki ci gën mooy koo xam ne saa bu tooñee yàlla. dana am honnêteté intellectuelle taxaw ci kanamu yàlla ni ko yàlla baal ma duuti am tuub naa ko tuubi sallallahu alayhi wa kookoo gën ci jaam ñi alayhi salaatu salaam nee na kooku gën ci jaam ñi wallahi bu fekkonte ni njiiti réew yi mënoon na maa wax ak ñoom dama leen di digal ni nañ génn seen pale yi ñu dajale seen peuple yi peuple bi nga xam ni daaw ñoom am accès ci ñoom ñu leen ñaane audience ñu leen may ñu leen bëggee gis ñu leen gis buñ jëlee tali ñu wàcce leen tali bi bañ jàll aka neexoon ñu génn seen pala yi dem ba ca pénc ma te ndànd foy foy ga woo peuple bi yépp ñu ñëw taxaw ñu taxaw ci kanamu yàlla ni ko yàlla tuubi ruubi xam nañ ni virus corona bi dara waralu ko lul ñun ñi rek yàlla baal nu wallahi buñ ko defoon léegi tey virus corona abal ñu addina bi buñ ko defoon léegi virus corona abal ñu addina bi ñu génnoon seen pale yooyu wàcc ci ndànd foy-foy wala ñu dem ca jàkka ya ca ñexe ay julit ña du ay julit nañ dem ca ndànd foy-foy ga woo seen peuple ni ñun ñi naqare woon a gis te dara warulu ko lulu sunu ngand ngand lu rek dara warulu ko lu xam nañ ñi yéenu ñu fal waaye dara waralu ko lulul suñ poos yu diis rek léegi ñoo ngi nii ñoo ngi yéen a yem ñun ñëpp ay jaam lañ ci benn buur kenn képp ay buur mooy rabbu isiti wa jalla jalaaluhu xalaxanaa mawlaana yàlla nag ñun xam nañ ni tooñ lañ la waaye waaye rikk baal yàlla ni baal naa leen léegi fayrus corona génn addina bi ku weddi SNL ku weddi SNL rek na benn président wàcc rek ci xuus ci biir peuple am ñun ñëpp nañ leen ànd torox loolu yàlla ndax yàlla rek fi ne na ko instant xool rek léegi fay rus corona able moom réew mhm. lu mel nii nag bu masaana am crise bu mel nii nga xam ni day beese économie bi crise bu mel ni bu masaana am nga xam ni da écrasé économie bi ku daan am benn dootoo am sax wala dootoo am genn wàll yonenti yalla yoni xam ngeen ni ñooñu gëna xam yalla gën ñoo jégué yalla ñoom kiris bu melni ni bu masana am ci adina bi ni ma wax lañuy def moy dañuy wacc wo peuple ba ñi leen tay leen nu and taxaw ci kanamu yalla niko yalla ñun buñ dara say dong lañ yow rek yaay bur buñ ko masana def rek solution am buñ ko masana def rek solution yonent bu yalla masa yoni jaar na fi ako xétam moy yonent bu yalla yoni bu ne kiris kiris mondial masna am ci sa yonant waaye nan lañ ko solutionné mooy nii ma wax rek yonant bi yàlla yónni bu nekk dañ tàmbalee ci yonant yàlla Huud alayhi salaatu wasalaam kere ba nga xamee ni nii kiris dal na ca kaw réew ma économie bi daanu mu dal di wàcc ca ndand foy foy ga ca pénc ma woo aw woo poopalam aw nitam ñi leen kaay nu ànd tuubal yàlla lu nu mën a dal sunu sàggante rek wa yaa xawmi astaxfiru rabbakum suma tuuboo ilayhi yurzili alaykum midraara wa yasidukum quwatan ila quwatikum wala tatawalaw mujrimin ma nga sóoratu Huud sun borom am na président bu ma woon bu ñuy wax yonent yàlla Huud alayhi salaam mi nga xamee ni crise mondiale ci diggante crise de valeur ak crise économie ñaari crise yëpp dal ci seen kaw ba daanaka amatuñ ñu lekk amatuñu ñu naan mu ni moom moom nga xam ne mooy gidd ba mooy président ba moo génn ni yéen peuple bi acca wàcc leen ñëw leen ñu ànd tuubal yàlla astaghfiru rabbukum mu ni buñ ko defee léegi tey économie bi daal di réglé wu buñ ko defee rek léegi tey économie bi daal di yëgaat ba nekkaat place am yursil sama alaykum midraara lu nekkoon ci teraanga ci asamaan yàlla danañu ko wàcceel fu petrol feeñu woon petrol dana fa feeñ fu gaz feeñu woon gaz dana fa feeñ yursilu alaykum midraara yursilu sama alaykum midraara astaghfirullah afwan yursilu sama alaykum midraara ca la yam déedéet wa yasidukum quwatan ila quwwatikum kenn ku nekk day multiplier sa sifar sa chiffre d'affaires danaa ko wax ci palaasam kenn ku nekk sax suñ borom du ca du ca yem waaye sii du comme bu réglé problème euh, économie ba noppi mu ne ah mu ne waaye sii du comme quwatan ila quwatikum fu pétrole feeñul woon dana fa feeñ fu gaz feeñul woon dana fa yi tëjoon yëpp daañu ubbi waaye sii du comme quwatan ila quwatikum mu ne benn problème dong la am de mooy wala tatawalaw mujrimin bu kenn ni man bokkuma ci na ñëpp ñëw bandi yek ministère yek député yek serigne yek oustaz yek mune na ñepp ñew rek wala tatawalaw mujrimin agressé yi sax buñ wax ni man bokuma ci nee agressé yi sax nañ ñëw tuub yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam dafa amone benn kris bu amone ci jamono sun borom tiyam ndoxam économie bi daanu amatuñu dara comme Moussa moom mooy président bi lépp ci boppam la yane lépp ci boppam la yanu Moussa num def te président bu baax bu ne noonu ngay def président bu baax bu ne bu saw xeet nekkee ci problème bu sam réew nekkee ci problème bu sa peuple nekkee ci problème dootoo tëdd nelaw dootoo lekk ba suur dootoo naan ba màndi Moussa lekkatul naanatul ñu ngi tàllal yàlla loxo rek naan suñu borom virus corona bi kañ la fiy jóg virus bi kañ la fiy jóg sa jaam ñaa ngi jeex amatuñ lu ñu lekk économie bi daanu na suñu borom faalewu ko sax yàlla amul xol de yàlla amul xol borom faalewu ko mu jin musa nag ni waaw yow suñu borom yow maa ngi lay jàmbat sama problème mu peuple bi boobu ba tey faale woo ma lu tax. borom ñu ko sa peuple bi da cee am benn agresseur boo xam ni daa def aw jongolong benn mboolem jikko yu bon yëpp daje na ci moom ab rambaaj la fenkat la naafiq la moykatu yàlla la moomatee taw moo tax ma écrasé économie bi Moussa ni suñ borom wan ma ko ma génne ko réew mi wan ma ko gaaw ma exilé ko mu génn réew mi suñ borom ni ko ah kon li ma doon bañ ci moom ma def ko di rambaaje man kay duma la ko wan mu ne ko kon léegi luy solution mu ne ko solution mooy defal appel defal appel nga génn ca digg penc ma dem leen ca jàkka ya ngeen ànd ni ma yàlla ñoo la tooñ baal nu dootu am tuubiru bi yëf yi jeex ma régler problème bi Moussa ni ah bu dee loolu kay ay ci Moussa daal di xëy def appel daal ni ma ñëpp fekk ca penc ma xam naa bu doon ci réewu jullit da nga naan na ma ñëpp fekk ca jumaa ja bu dul réewum jullit nag da naan bay ba na ma ñëpp fekk ca penc ma rek ca bayaal ba wala fay ñu tuddé tahrir bok nga xam moy mooy comme eh, place de l'indépendance waaw bu président génnoon ni dama ñepp fekk place de l'indépendance ñu eh, ñu tuubal yalla ñun yalla yow nga ya fi ne du kenn ñi ñi ma daan wax sax na ma ñola la taxafalu sax dañ may nax yalla yow rek nañ ko essayé xol ba xam bi sayidina musa defee nonu dal di woote peuple bi yépp dal di ñew mu ni xam ngeen lan la ñaa mu ni maay seen president ñu ni waaw mu ni maag yéen yam ñun ñepp jaami yalla lañ acca nañ leen sukk suñ ñaari beti wam ñu diam. lool suñ borom rabbi sto jàll ndeke ñuko def rek solution dal di am ndeke ñuko def rek solution am naka non nit yent yalla hoot non la mom lañ suñ borom di wax ci ay bobu <coughs> ci suratu xóot ngeen bal ma kazalika bo ñewé ci jamono yi yent yalla salih alayhi salam momit president la ci men rew bi yàlla dogalee crise bu mel ni am économie bi daanu usines yëpp tëj nañ ñee ña ngay semé kenn amatul loo liggéey ñi dàq nañ seeni emploi man la yent yàlla saalix def mooy dafa def appel woote ni na ma fekk ca place de l'indépendance na ma ñëpp fekk ca ndand foy foy ga ñi ma ñëpp fekk ca jakka ja ñi ma ñëpp fekk ca penc ma ba ñewé mu dal di jël micro ba xaala ya xawmi abudu allaha ma lakum min ilahi khayruhu wa huwa ansaakum min al ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu zuma tubu ilayhi ndax inna rabbi kat xaribun mujib ma nga sóoratu hud momit ba legi nga xamé ni def na appel mom yonti yàlla salih ba peuple bi yëpp diko déglu ñi nga xamé ni ni 4 Afrique bu ñu tey la 4 avril président bi jël micro wala jël télévision adina bép diko déglu Sidina salih non la defoon daa dem jël micro bi taxaw ñu dëpp ko caméra yi mu ni yéen wa Sénégal lay waxal ñëpp ni cial diko déglu ñu ko yow rek lañuy déglu mu ni abudullaaha ma lakum min ilahi khayruhu bu len jamoti kenn ku yàlla kenn du fi buur ku dul yàlla man mii di wax ak yéen sax du ma buur yàlla doo ngay buur bu leen fi jaamooti kenn ku dul moom bu leen fi déggalati kenn ku dul yàlla abudu allaha ma lakum min ilahi xayruhu amu leen keneen ku dul moom de économie bi bu yéegee mooma bu beesee mooma bu tawee mooma bu ñàkkee taw mooma développement bu amee mooma bu leneen amee mooma maa lakum min ilaahi xayruhu amul leen kenn ku mën a solutionné mbir yi ñun dañ fay nekk di sabab lu dong nekk ci seen kanam waaye lu sotti yàlla kat ñu ne ah mu ne waaw waaye président yi ñoom duñ def noonu dañuy fëgg dënn rek naan ñu na ñu na ñu na waaw fenn fu ni ñu ni def naa fa lee def naa fa lee maa fi indi lii maa fi wax lee yont yàlla saali ni mbir mi du kenn yàlla yéen wa Sénégal muna ma ngi leen di xamal ni mbir mi du kenn yalla kat ñu ni waaw lutax tax mu ne huwa ansaakum min al ard kan mooy leen aménageel suuf si ba ngeen man fee dëkk maa ngi leen koy laaj est ce que man la ndax man président bi man maa leen aménageel Sénégal ba ngeen man fee dëkk huwa ansaakum min al ard kan moo aménagé suuf si ba ngeen man fee dëkk wastaamarakum fiiha mu bàyyi leen ngeen man fee dund bu ngeen bayee am lu ngeen récolté bu ngeen duggee ci géej am lu ngeen napp kan la est ce que man la kum doon ha kenn ñeme naa tontu ku dul yàlla kenn ñeme naa tontu rek ni mën ku dul yàlla rabbi si tuba jàlla jalaaluhu moom dong mu ne gannaaw xam ngeen ni mooma nag te kiris bi am na ñun ñëpp nañ ànd ko baal ñoo def le tax mu téye am ndoxam ñoo def li tax mu yàq économie bi ñoo def li tax mu yónnee ñu fayrus korama fayrus korona ñun ñii la kon nag fastaxfiruhu suma tuuba ilay ñu ni waaye ñun yàlla moom gisuñu ko dégguñu ko ba naan ko yàlla baal nun tuubiru bi mu ni inna rabbi xaribun mujib yàllaa ngi nii bu ngeen di wax mu leen di dégg inna rabbi kharibun mujib yalla ngi ni bu ngeen di wax mu di deg hmm ma nga suratu Hud momit inna rabbi kharibun mujib yalla ngi ni bu ngeen di wax mu di len deg wutewul dara umpelewul dara fekke na lepp ah ndeke ñu def lam wax rek solution daal di am suñ borom min ha khalaqnakum wa fiha nuidukum wa min a nukhrijukum taratan ukhra suratu taa yalla ni aha kay yent yàlla saalix li mu leen wax mooy dëgg ci suuf mii laa leen bind mën leen a dund benn teer bu dul ci suuf rek fenn fu ngeen mën a dund ful ci kaw suuf amul mën leen a dund asamaani juróom-yaar benn palaaneet bu ngeen mën a dund bu dul planète suuf si rek amul min xaa xalax naakum ci laa bind tey nag wa fiha nuidukum bu ngeen dundatee bu ngeen dundee ba seenu dund jeex amu leen benn planète bu ñu leen mën a delloo lu suuf si ngeen doon dund fi laa leen di dellowaat min ha nu'idukum min ha khalaqnakum wa fi nu'idukum ñu naa mu ne waawow mu ne yowmal xiyaam bu nit ak jinneeg malaaka teewet kat wa min ha nuxrijukum taaratan uxra amuleen benn planète bu ngeen di dekkee bu dul suuf si rek waaw ñun yàlla préparé ñu pour suuf yàlla indi ñu fi pour suuf ba noppi nag ñu bëgg dëkk ci yàq suuf rek ba noppi ni dañ fi am jàmm yàq nañ oxygène bi kan doom aadama yàq nañ terre bi kan doom aadama yàq nañ gàncax ji kan doom aadama lépp mooma rek lépp doom aadama te yàlla kat daf na ci alquran ni wala tufsido fil ardi ba'da islahiha waddu khawfan wa taman ndax inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin ay wajile aménacé sena suuf ba suuf tàlli ñaa yi dem ngeen fa man ngeen faa dund waaye li ma di ñaan mooy bu ngeen demee bu leen ko yàq nag bu leen ko yàq mu ne dem leen rek jaamu ma fa te sellal jaamu gi tey xemmam sama yërmande mu ne waaye sama yërmande ñi ma ko dencal mooy way rafetal ñi de mooy way rafetal ñi de ab sénégalais xam nga lu mu lay waxal mbedd mi mbeddum buura mbedd mi lay jëkk a yàq ni la mbedd mi mbeddum buura te xamul ni moom mbedd mi mu yàq ca kawam lay dellusiwaat ca biir këram la jëmaat ca biir këram la jëmaat waaye lijjantiwut loolu de mm-hmm. dinaa ko wax ci kanam tuubaak euh, lii nga xam ne moo moo fi nekk ci wàllu li ñuy tuddee mm, maanaam fawda fawda fawda di am tuuba muy sareet yi muy oto yi muy moto jakarta benn fawda boo xam ni yow saa boo xëyee da ngay xam ni yàlla sëñ Touba rek la yàlla rusé sëñ Touba rek lañu ñu yàlla rusé waaye benn façon mal éducation boo xam ni yow mënuloo ko sax imaginer loo ko sax imaginer ci seen wàllu transport te lu yomb organiser man doon naa ko misaal masalan lu mel ni tey sareeti Tuubaa yi góor ak góor ñooy bokk toog kii góor ak jigéen ñooy bokk toog di riisoo nii waaw sareet defe naa ñaari côté la lan moo tee ñu ber jigéen ñi benn côté bi ber góor ñi benn côté booboo ci jëkk soo demee ci oto yi di transport ñaari banverse yi bu feesee dañuy jëlaat beneen banverse teg ci diggu oto bi góor ak jigéen roofaloo góor joo xam ne duñ duñ duñ ay maxaram ak i jigéen yoo xam ne ay maxaram ñuy roofaloo seen tànk yi di roofaloo nii la qadar allah wala saman subhanallah transport bu mel noonu di am ci dëkk bu mel ni dëkk bu Cheikh du Bamba mamlaka saxudiya bii ma doon wax sax li ñuy doy doy waar organiser nañ transport diggante góor ak jigéen bu dee oto Mbàkke Tuubaa yi lan moo tee ñu ni benn baaw traverse bi ay jigéen yi kese fay toog beneen baaw traverse bi ay góor yi kese fay toog c'est très facile te loolu ñi yor dëkk bi buñ ko waxoon rek mën nañ ko organiser wallahi buñ ko defoon danañ gis ci xeetu teraanga Tuubaa ci fii ci Tuubaa loo xam ne sax dana dana dana ub boppi doomu aadama yi mal asaf wallahi bu sëñ Tuubaa del siwaatoon soppi ko waye mal asaf mal asaf bu sëñ Tuubaa del siwaatoon dana soppi transport bi nek touba parce que fawda la bo xamni ken kenn xamul lan la ken ken waaw fawda la bo xamni ken kenn xamul lan la lu neex waaye def rek la waye seigne touba dong lañu yàlla di xoole xam nga alquran daa waxoon ni yen adina bi yonentou bi laa leen di xoole وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم من يالا دوما لين يوني فيروس كورونا لي فيك محمد نغي من يالا دوما بيس ايكونومي بي لي فيك محمد نغي من يالا دوما في اندي لي ني تودي عصمه الاخلاق موي كريس بو خامني ني لي ني تودي آه، كريس دو فالور بو خامني داي داجالا جامونو كاب لي فيك محمد نغي دوما كو ديف موك من يالا روجينا لين محمد صلى الله عليه وسلم الحسين علي المصطفى عليه السلام وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم li feeg mi ngi fi mukk rusé naa leen ko parce que gis nañ yonent yi fi jiitu woon bu mu nasaan woo seen peuple ci dara ñu lànk yàlla da leen di massacré ñu jóge fi yàlla ni man rusé naa leen ma yonent yàlla muhammad du ma leen massacré mukk li feeg mi ngi fi wa ma kaana allahu li yu'adhibahum wa anta fihim surtout anfal Mhm. ah loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande jim amoon ci xeetam wi taxoon na mu ni yàlla man de xam naa ni dund lum yàgg-yàgg danaa fi jóg te sama xeet wi dama am ci ñoom yërmande te xam naa ni nee nga doo leen massacre li fi ak maa ngi fi waaw bu fi jógee nag mu naa ah, boo fi jógee day lenn rek ay mën a tax ma di leen xool bëtu yërmande ba ma leen daan xool bi nga fi nekkee mooy saa buñ defee aw jongolong ñu nangu ni def nañ aw jongolong ñëw taxaw ci sama kanam ni yàlla baal nu dootu am tuubi ruubi loolu doo ngay mën a tax ma baleen fi ba duma leen def dara wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaxfiroon wa hum yastaxfiroon mu ni loolu doo ngay tax man yàlla ma bàyyi leen fi waaye bu loolu la daloon ñëpp leen di dal la ñëpp leen di dal kon nag ay ca buñ bëggee solution ñun ñëpp nañ ànd dem ci kanamu yàlla ni ko yàlla ñun duñ dara yow dong yaa fi ne yaay càppaacoli yaay càppaacoli nañ taxaw ci kanamam ni ko yàlla boole sexaw ak lem jëlewu fi virus corona xam nga ku ko fi mën a jële yow dong waaye boole sexaw ak lem jëlewu ko fi nañ taxaw ci kanamam ni ko yàlla dëbbu laaj saaf gerte lekk jëlewu fi virus corona yow dong yaa ko fi mën a jële yow dong nañ taxaw ci kanamam ni ko yàlla saraxe téeméeri junni neen taxul corona jóge fi yow dong yaa ko fi mën a jële yow yàlla yow rek ah yàlla nag wan nañ solution bi nee na bu ngeen bëggee ma jële ko fi taxaw leen ni ma yow dong nga man loolu rek laay séntu ci yéen taxaw leen ni ma yow dong nga du kenn yow rek wax leen ma ko rek sun borom moom loolu la wax bu ngeen nangoo taxaw ci man sukk ci sama kanam damm seen bëti wóom yi nangu ni mana ni ngeen nangu ni ma xujja mooy président réew mi nangu leen ni man yàlla nii maa bind addina bi maa ko moom rek bañ cee seppi sama loxo demee ci yam ci yàlla noox alayhi salaatu wasalaam moom it xam ngeen bi nga xamee ni crise mondial am na nga xam ne nii économie bi beese na doomu aadama yi amatuñ la lekk amatuñ lu ñu naan mu daal di def benn sorti moom Seydina Nuux alayhi salaam président de la république mu génnee mu ne sama wax ak yéen mooy sama discours mooy lan mooy fa xultu astaghfiru rabbakum innahu kana xafaara yursil sama alaykum midraara wa yumditkum bi am bi amwaalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara suratu Nuux Seydina Noox discours bi mu def dani xam ngeen lu xewa économie bu daanu bii seme bi xale yi di seme kenn amut liggéey bu ñu bayee duñ récolté bu ñu nappee duñ ami jën wére di yaram yi nit ñi di dee mu ni leen doon ko sabab ñu ni doon mu ni dañoo dañoo nanguwul ni yàllaa nu yilif rek léegi nag ngir ñu wan yàlla ni ko yaa nu yilif maa ngi leen di wax ni astaghfiru rabbakum nañ ci yàlla ni ko yàlla yaanu yilif nañ dellu ci yàlla ni ko yàlla yaanu moom ndax moom kat innahu kaana xafaara saa boo nangoo ni moom rek nee na mu ni la toppatuma la dara maa yàlla naa la wax ma loo bëgg ma defal la ko innahu kaana xafaara ne buñ ko defee yursil sama aleykum midraara teraanga ju newoon ci asamaan danañu ko wàcceel yursil sama aleykum midraara ca yam déedéet wa yumditkum bi amwaalin wa baniina mu multiplier suñu usines yi multiplier suñu alal yi multiplier suñu ila axiri ila si da koy multiplier wa yumditkum bi amwaalin wa baniin gis nga mu bu boobaa suñ njaboot gi sax yàlla da koy multiplier suñ doom yi sax yàlla da koy multiplier ni ñuy amee doom sax yàlla da koy multiplier ah waa Europe ba ngi nii nee nañ Afrique dañoo bari waratuñoo jurati nañ leen wàññi rey leen bu ngeen toppee samay waxtaan ca gannaaw waxoon naa leen ni li ma gis Europe bu dëkkul ñu dem ba africain yi ñooy mujj dëkk Europe wa ilaa boog golo yi dem dëkk ko waaye Europe moom dana fayit topp leen waxtaan yi ca gannaaw ay atan ci gannaaw maa ngi leen koy wax ma ne Europe danañ dem ba dana fayit lu ko waral man leen ndax ñoom juratuñu te ñu ngay màggat te màggat day dee ñoom ñëpp ay dee ba jeex malheureusement bi virus corona bi ñëwee gis ngeen lam faray ci màggat bu yàgg maa ngi leen doon wax ni buñ ci kanam tuuti Europe xalaat bi mu am mooy moom bi mu daataan constaté ni ndekete def na njuumte mooy créé na li ñuy tuddee planning fexe na ba convaincre jigéen ñi ci ñu ñuy jur ñaari doom faqat képp yam ca bañ gëm ko léegi nag pour mu rattraper ko passé na amatul benn solution parce que ndaw ñi juddootuñu maanaam xale juddootul ñu ngay màggat te ci dee lañ jëm su boobaa réew ma benn ay golo ñëw dëkki ko wala africain yi dem dëkki ko ñoom nag loolu bëgguñu mu am ñu ni kon nag léegi liñ liñ def mooy nañ fexe ba éliminer africain yi liñu ñu njëkk a mooy fexe ba ku jur ñaari doom taxaw aca nañ calculer bi ñu tàmbalee di toqal sunu doom yi lañ leen daan toqal ak léegi ci at yi ñu toll jigéen ñi ku ci am ñaari doom léegi dal di taxaw hôpitalu hôpital nga dem fa sëriñoo sëriñ nga dem fa ñu ngi gisuñu dara mu ne ah man de taxaw bu yàgg ba tey mënu ma am doom ñaari doom rek nga daal di taxaw xoolal génération bañ toqaloon ba fii may wax ak yéen nii rek dem leen ngeen seet ko ngeen natt ko xayma ko ku ci am ñaari doom rek jur doom tële léegi waa lu ko sabab duñ ñu ko wax te ñu suñ maam yi daan ay fukki doom suñ yaay yi daan jur fukki doom lu ko sabab duñ ñu ko wax nan ñu ko wax bu fekkente ni du toqal ya nañ ñu wax la na man di niw ma toqal yaa waaye dama ni calculer leen rek xale yooyee génération boobee ñu doon toqal ak fii ma toog di wax yéen ku ci jur ñaari doom rek am ñoo xam ne sax ñaari doom yi da leen di tëb ñoo sëriñ danañ fa dem mënuñu am doom sun borom ni bu ngeen ma bàyyeeg seen bopp bu ngeen ma bàyyeeg seen bopp wayum kum bi am waalin wa banina damay multiplier seen alal yi di multiplier seen njaboot gi mu ne du ma ca yem wa yaj'al lakum jannatin tool bu ngeen bay mu ñor ngeen am lu ngeen récolté ñu ni ko lu tax mu ni wa yaj'al lakum anhaara du ngeen jeexal ay dex ngeen di bay mbayum noor économie bi daal di jóg économie daal di avancé naataange am naataange am mhm. tubaab bi moom buñ ko waxee buñ ko waxul benn vision lañ am mooy Afrique na fayit Afrique nañ nañ nañ leen wàññi sinon nis tuuti nis tuuti nis tuuti ñoom ñooy mujj moom Europe niis tuuti rek waaw xuma danaa fekk xuma duma fekki nis tuuti ñooy mujj yi def Europe loolu la ñuy bañ de loolu la ñuy bañ de waaye xalaatkat yi nañ ci xalaat rek borom rabbi sunu jàll nee na wa man yamal suan aw yaslima nafsuhu sama yastaghfirillah yajid al ghafurur rahima nga suratu nisa sun borom nee na képp koo xam ne nii da ngaa toog ba yàgg nga nemmi ko ci sa bopp rikkile da ngaa nemmi ko ci sa bopp sa alal di yàqu wala nga nemmi ko ci sa bopp sa waratuloo ci jaamu yàlla bëggatoo yàlla bëggatoo yonant bëggatoo lu baax nemmi ko ci sa kiris nemmiku sa bopp ay tolof tolof sun borom ni setatal sa bopp muna muni ken toñu la ya toñ sa bopp de a ah, lutax tax nga ni maa sa bopp muni setal sa bopp rek amna lo def yalla loko ko wona def wa man yamal suan aw yaslima nafsuhu mu xam nga luy solution bi bo gisee ni commencé nga am problème nga alal alal jangay ngay fayit usine yaa ngay tëj yaq. Bank yang lay top ila akhiri sun borom neena nemikul sa bop gawal daw delu sa ci man sama yastaghfirillah xamal ni dang ma togn dang ma togn ben sa alal joju alal li mor ko jangi ci wo ko jox te xam nga ni alla ma yow xam nga bu lo tey mom yalla man na ko waye na ni sa alal ji sa alal ji alali moor ko jangi ci mu lew ko dom nga ni ko duma la ko jox ala ji xey di yàqu rek di yàqu rek sun borom ni gaawal dellu si fi man ni yàlla baal ma bu dee mu war ko jëmoomee mi ngi dund ay ca bala ngaa balu yàlla mu baal na alal ji génn sa loxo ba noppi nga dem joxi ko ko bu fekkente ni dundatul nga laaj ta njabootam nga jox leen ko bu fekkee ni dem nga ni njaboot nga kenn dundatul sarxeel ko ko ba noppi nag ni yàlla dootu am sun borom nee soo ko defee rek da ma fi fekk ma jatu di la xaar booy ñëw ma lay baal daal di multiplier li nga nekkoon suma yastaghfirullah yajid allah ghafurun rahima suratu nisa mhm. <coughs> waaw sun borom loolu la wax rabbi istiwa jàll ah da nga am benn waay boo xam ni da nga sif sane ndax mën naa am laa gën a da ngeen a bokkoon koñ wala da ngeen a bokkoon quartier wala ngeen bokkoon usine bu ngeen di liggéeyee yow yaa téléphoné Sénégal wala Afrique niñ gëmee buxaaba daa di wax sa sëriñu xaaba boobee ni ko da am ku ni ku ñu wax moor xujja mu ne ah. ni moom la tubaab bi teg ci suñu kaw moo nu jiite te xam naa ne bu fi jógoon man la tubaab bi jox place bi damaa bëgg nga naaw talal ma ko yónnee ko daal euro bu bari rek mu daal ni acca bisimilah euro moom duma ma raw la la Balham waxoon ibnu Baawara euro bi kay du ma raw mukk ah dal di koy def yàlla fekk ko ca nga liggéey alal ja ba alal ji sont fenn fu ne nga am fa kër am naa kër Mbuur am naa kër Ndakaaru am naa kër Tuuba am naa ko Kawlax ba yi daje yàlla ni la doo ko jëriñoo de xëy rek yónnee la benn virus nga paralysé nekk ci hôpital yi di faju di faju ba xëy dem bàq ya mu ni bu fekkente ni nag léegi bëgg ngaa gaaw génn ci catastrophe boobu virus boobu la dugg mu ne ah mu ne gaawal wëri nag ibra xujja moomee ibra xujja moomee nga naawtaloon gaawal wëri ko ba gis ko dem ci sëriñ ba nga joxoon alal ja ni ko gaawal dindi ko tuubi ruubi dootu am ah bu booba day yàlla nee na boo dikkee ma fi man ma jatu di xaar ndax man duma xeeb duma gedd suma yastaxfirillah yajid laa xafuran rahima <laughs> waaw waaw waaw noonu ma ko waxee noonu la amee nit ñi bëgguñu seen kenn ci seen kanam kuñ seen ci seen kanam ni ay di buri sara lu tax mu di ma jiit lu tax mu di ma jiit lu tax nit ñi moom rek la ñuy déglu lu tax moom rek la nit ñi topp lu tax moom rek lu tax moom rek mu jaral la bu xaaba bu ne nga dem fa ay yaa gëma yàlla way ay waay ji yaa gëma di yàlla mhm. suñu borom neen rabbi si tuba jàlla wa tuubu ilallahi jamian ayu al muminuun laallakum tuflixuun suratu nuur nee na daf leen a kobas jullit ñi la woo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi ci boppam la woo ayu al la wax ay yéen ñi ay eh, yéen way gëm ñi mu ne ah mu ne daw leen dellu si fi man yéen ñëpp nag mu ne bu ngeen ko defee rek am solution laalakum tuflihun bu ngeen koy def rek di am solution dellu si leen fi man ni ma yàlla yow rek ma jox leen solution borom mhm. rabbi su jàlla ba tey ci solution yi nga xam ni mooy li ñuy tuddee xallul jaay atu corona meilleure solution ci crise mondiale bi am borom rabbistu jàlla nee ci alquran واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله سورة هود borom nee na rabbi soo jàll yéen ñi nga dañoo na bëgg firis bi rek le dañoo na bëgg ni nga xamee ni nii noonu la économie bi daanu yëkkatiku suñ borom ni loolu bu ngeen ko bëggee dellu si leen fi man te yow ci sama kanam jéggalu ma ma jiggal leen muy bu ma leen jéggale ba noppi duma ci yem de ñu ne ko nooy def mu ne yu mattiyukum mataan adana dama leen di joxaat beneen économie bu bu gën bi ngeen perte beneen économie bu gën bi ngeen perte moom laa leen di jox li leen rawoon lépp ngeen dabaatal ko mu ne waaye nag ilaa ajalin musamma de ba keroog ba keroog àpp bi ma joxe woon di mat mu ne wa yuuti kulli si fadlin fadlahu su ko defee mboolem ñi nga xam ni ay boroomi alal lañ di yëngu ci wàllu économie mu ne ah mu ne damay min ci plier seen chiffre wa yuuti kulla si fadlin fadlahu kenn ku nekk la nga amoon ci teraanga dama koy multiplier seen sifa seen sifa dama koy multiplier man yàlla rabbi xam nga loolu yàlla rek ko man rabbi si sifa defar dama koy multiplier mun waaye nag ah na fekk rek li ma wax am de mhm. na nga fexe ba alal ji nga góorgóorlu ci lépp lew mhm. waaye genn kër nga jaay ko téeméeri nit xam nga ni chiffre d'affaires ba day moom mën hmm. ta multiplier wu de moom kay da koy fajo ba mu jeex rek genn kër téeméeri nit te naa dama bëgg sama chiffre d'affaires multiplier wu du mas a multiplier mu wax la ko tey boo yaakaar ni jal bi fi nekk compte banque ci tax nga yaakaar ni daa multiplier wu ah bisimilah da ngay xëy rek virus corona ni la dëxuus wala beneen euh, virus ni la dëxuus Mhm. Mhm. nga xam ni dañ yëngu ci wàllu commerce moom it noonu la di noonu la Seydina uh, yonent yàlla soox Sohaybu mas na ko wax nitam ña xëy na ma wax ko ci kanam moom it incha allah day gis commerçant boo xam ni ñaari balaas ñaari uh, poids lay yor maanaam poids yi muy liggéey yëpp poids bu am na ci ñaar bu dee poids un am na ci ñaar poids deux kilo am na ci ñaar poids cinq kilos am na ci ñaar poids dix kilos am na ci ñaar benn bi boo xoolee ci suuf am na benn biteex bu fi nekk nga xam ne mooy tax mu mat un kilo mu dindi biteex bi mu manqué benn mu manqué jën waa liibar wala cinquante grammes wala cent grammes ak cinquante grammes saa boo ñëwee di ko jaay dara poids bu manqué boobu lay teg kii poids bu mat bi lay teg bee nga xam ni dara sikku ci boo koy jaay dara muy jënd ni indi ci moom booba lay teg waaye saa bu lay jaay nag yow moo xam ceeb moo xam lu mu la mën a jaay su la koy jaay poids bu manqué bii la lay tegal suñu borom ni waylun lil mutaffifina yàlla na commerçant yi nga xam ni dañuy babu alali nit ñi dee waylun lil mutaffifina lisina isa aktalu ala a yastawfuun ah ñoom bu fekkente ni dañuy peese lu jëm ci ci seen bopp ñu peese ko ba mu rëng daanu ñu teg place yu place yu 10 euh, poids yu 10 waaye bu fekkee dañuy peese di jox ñeneen safaan ba lañuy def waylun lil mutaffifin xam nga foofa kon mënoo wax ni dëgg-dëgg sa chiffre d'affaires ma ngay multiplier wu même bu dee multiplier wu ci saa yeeg nii nga di ko gisit ah lu suñ borom waxoon yam xaqulaahu riba mu ngoog da ngay xëy rek ñun la place ba lakk na wala oto ya accident nañ jiw mi ñu naan moo fi nekkoon milliardaire bi barki démb di wala nga tëdd ci lal bi dootoo mën a jóg kaasub meew dootoo ko mën a jeexal laa xadar allah wala saman jëlee nañ ci sayidna abi urayra radiallahu taala anhu mu ni samixtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaxfirullaha wa atubu ilayhi fi l yawmi aksar min sab'ina marra aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam te bi uraya nee na maa dégg sama nopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni man la yàlla yónni ñu ni waaw mu ne xanaa du man mii la yàlla waxoon ni toppatuma la dara mbaa yàlla naa la naa fatahnaa laka fathan mubiinan liyaghfira laka llaahu maa taqaddama min zanbik wa maa ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siraatan mustaqiiman ñu ne ko yow mii la ko yàlla waxoon mu ne gis ngeen ànd ak loolu lépp yàlla nee na toppatuma dara waye and ak lolep moy bis bu ne man dana sukk ci kanamu yalla niko yalla yàlla ma ba muy ñaar fukki yoon bis bu ne man muhammad dana sukk ci kanamu yalla niko yalla bal ma yalla bal ma yalla tuubi rubi yalla dootuma ko def ba muy ñaar fukki yoon neena bis bu ne ma def ko man yent yalla muhammad te kooku la yalla wax niko topatu mala dara mba yalla nala mba yalla nala moko naka mok yow mi nga xamni yow ab businessman nga danaka tolo yalla lulul ay minute yu néew booy julli danga koy rëpp rëppal nii ganaar guy cox dugub mhm. kon masa yow yow noo war a def yow nu ma waxe woon ni suñ borom rabbi sit wa jàll am na ay gaayam yoo xam ni daf leen di xoole jaam ñi dama ko wax léegi ci bi may junji sëñ Tuubaa ñun waa Touba yàlla dañuy xoolee sëñ Touba ak waa Sénégal ku nangu waaye xam naa ni man li ma wér te wóor mooy fawda bi am Touba te ba noppi mu jur jàmm képp jàmm dong di am wallahi yàlla dañoo xoolee sëñ Touba waaye bu moom ay di sara fawda bi am Touba te jàmm dong di am jàmm rek mbokk yi boo duggee ci dëkk bi sareet yi ni ñuy def ci biir oto yi ànd ak indiscipliné boo xam ne mëneesu la ko wax. jakartaa yi bismillahi rahmaan te jàmm doo ngay xew jàmm rek ay xew wallahi xam nga ni yàlla dañoo xoolee sëñ Tuuba yàlla dañoo xoolee sëñ Tuuba rek mhm. mais na loolu ma waxoon noonu Seydina na a ko jëkk a wax Seydina Omar moo moone addina bi ñaari sécurité lañ amoon ñaari sécurité mu ne addina bi ñaari protection lañ amoon yàlla di leen xool ba du leen teg aw tiis mukk ñu ne ko ñaari protection yan la mu ni benn ba mooy ka ñuy wax Moustapha alayhi salaam waaw muy waaye nekkatu fi de boobu protection moom jële nañ ko fi moom nekkatu fi ah ci saahir de nekkatu fi xanaa baatin bi waaye saahir moom nekkatu fi mu ni ko protection ñaareel bi mooy ban mu ni ataw ba minute bu ñu ñëw ni yàlla baal na yàlla dootu am yàlla tuubiru bi motax mo waxon mom omar neena laqad kana fil ardi amanani azabullah laqad kana fil ardi amanani azabullah من رفع الاول وبقي ثاني فالاول فكان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس واما ثاني فهو الاستغفار الاستغفار فهو الاستغفار او كما قال رضي الله عنه امرك وخون Omar dani suuf si am na ñaari protection addina bi am na ñaari protection am na ñaari amaana am na ñaari sécurité mu ni benn sécurité ba nag dafay nekkatul ñu ne ko ñaari sécurité yi kan la mu ne benn bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa fi nekkee sécurité la ci addina bi mu ne bi fi jogee nag mu ni benn lañ dese mooy istixfaar ñu nekk waaw ndax loolu mën nga koo layal ci alquran alkarim mu ne waaw waaw من واحد مديق من خال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقال أيضا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والله يرندي يرندي يرندي كنك لك الله سبحانه وتعالى بنو فيروس كورونا بنيم أمي سنغال أمي في دمي du njàmbaaru waa Sénégal du xam-xam bu bari déedéet ba am ñu yàlla rusu te xamuñu ko rek ni mel ci yeneen réew yi te ñooñu ëpp ñu ay moyen fop gën ñoo xarale fop da xam ne mën nañoo tabax hôpital ñoom ci benn jour wala ñaari jour wala ñetti jour ba noppi mu tëleen ticc mënuñu ci moom dara ñun waa Sénégal daa am ñu yàlla ruse rek waaye nag ah faaw nag mu musal leen ci ndax ñu jaajju deltu gannaaw waaye xam nañu day ah, bona gën bon na ni de wala bona tati bon dong yam ca moo gën bon a tati waaw mboolem réewi addina bi ñoom bona tati ca lañ yegg waa Sénégal moom ci bon dong la jëmagoon xay na waaye ñee moom bona tati lañ def ñoom bona tati mhm. waye nak and ak loolu lu mbir mi graw graw graw yalla neena man duma xeb duma bu ngeen ñewé rek ma ngi jattu di len xaar yalla neena subhanahu wa taala man duma ma gedd du ma xeeb waaye rabbi siti wa jalla jalaluhu yalla bax deug deug deug yalla bax mom du gedd du xeb yonent bi la ko wax niko waxal ma sama jamm ni nee leen man yalla duma gedd du borom dañ yonent bi sallallahu alayhi wa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لتخ من إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لتخ إن الله يغفر الذنوب جميعا ma sóoratu sumar yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaam ني لين من يالا yàlla جد ma خيب ya ibadi lisina am la ya ibadi lisina asrafu ala anfusin la taqnatu min rahmatillah duma gedd duma xeb te kat man yaghfiru sunuba jami'a man yalla ku ñew dima balu duma la bal len li bayyi len li nga day jam bo xani nit ki dana ko togn mu ne ko bal na li waye li dag mu koy fay yalla ni man duma defante ak nonu sab jam yaghfiru sunuba jami'a suma ko xësee bakoy bal lépp la koy bal dama koy gracier total qul yaa ibadi lasina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah lutax inna la yaghfiru sunuba jamian lutax inna huwa xafuru rahim muni man yàlla bokk maa nit nak ndax man xafuru la rahim la man duma nit man duma nit budon nit moy am lu muy épargner naan lii laa koy bal bayile muni man yàlla duma épargne dara ci say bàkkaar lépp la lay bolé bal bo xasee nanguni man yàlla ma yàlla maa la bind maa la moom nga déggal ma ma bal la lépp moy ne cheikh Ahmadu Bamba radiyallahu anhu jinji lu mel nonu ci xasiidaam ga Sëñ Tuubaa neena ومن تدارك الذي قد فات من اللخا وامر الاوخاذ بتوبة النصوح والإقبال إلى الإله فاس بالكمال أو كما قال رضي الله تعالى عنه سياه القديم نينا رضي الله عنه مني كيف كو خمني خمغني الله دو جد دو خيب بلولو تخلا دي لسي غنيو ني الله مانجي فن أمول كن أمول فنن أمول يوريكا نينا سوكا دفع بنوبنك سمبسو خيل دقل لنغا وقت waxu deugmal yàlla rek baña dëpp neena ak lula meuna rawon dang ko dabatal lula meuna rawon rek ding ko dabatal neena condition bi benn dong la moy bi tawbati nasuwa li nga wax ni deug ci yow rek bo bu doolee deug ci yow bo nopi nak way qibali ila al ilahi nga day deugmal yàlla ni dotuma dëpp nak da ngay deugmal yàlla te ni dotuma dëpp muk sëñ tubaa nee ne lii boo ko defee bil kamal fu yonanti yi nga texee fa fu yonanti yi dëkk nga dëkk fa ak yow khiyam fasa bil kamal ñeen balma loolu la si Ahmad Bamba wax faasa bil kamal fu Moustapha dëkk alayhi salaam ba léegi nga dëkk fa ndax yàlla du gedd du xeeb hmm. loolu si Ahmad Bamba wax ci xasida am googu mooy xadisu yonent bi sallallahu bi nga xamante ni nii abi saxiid moo ko nett li jëlee ko ci Saad ibnu Malik al Qutri radiallahu taala anhu sallallahu alayhi dafay nettali mu ni ci jamono al mutaxaddimuna moy jamono yu jëkk ya te moy li ñi tudde génération passée mu ni dafa am ci génération booba al mutaxaddimuna ben agresseur agresseur bo xamni ni daan wër nit ñi di leen dóor martu jël seeni alal agresseur la boo xam ni daana yegg ci jël bakkan ngir jël li nga yor ba jot a jël juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent téeméeri bakkan yi manqué benn rey na leen jël seen alal téeméeri bakkan yu manqué benn agresseur bi rey na leen jël seen alal waaye nag benn bis rek ni yar ci suñu borom bi ko bind te moom ñu ni man yàqu naa ay man fu ma jëm ak li def ci ay jongalong ci àddina bi yépp ma man fu ma jëm wala teekoo nelaw mu rëcc ko di jooy mu laaj ni waaw ndax du ngeen ma tegtal borom xam-xam boo xam ni su ma demee dana ma mën a laaye biir wax ma yoon wu may jaar ba yàlla man maa baal li ma def ci jongalong ñu ko ah kay demal dëkk sàngam benn boroom xam-xam bu sant si laa fa wala jaxate wala siise mbaa kebe boo demee dana la te ci yoon ah bi ñëwee ci borom xam-xam boobu sant jaxate wala silla wala kebe ni ko man de naa juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent waaye damaa dégg ñu ni yàlla du gedd du xeeb ma buggoon nag ginnaaw moom du gedd ñu xam naa bu doon gedd dana ma gedd fur waaye comme du jedd dama bëgg nga wan ma yoonu may jaar ba ma moom ba ma boole ma ci ñooñam ah borom xam-xam boobu sant jaxate ni ko yow ndax xam nga li ngay wax juróom ñeen fukki bakkan ak juróom-ñeent nga wax mu ne waaw waaw mu ko yow sun borom nee na wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jasaawo jaanama khalidina fiiha nga naan lan benn bakkan dong ko rey sawaraay si kër ca fa ngay dëkk ba faaw jógal fii mu ne ah ginnaaw man sawara dong laa jëm tu lu yàgg yàgg fa laa jëm kon kay yow naa la mott li ngay téeméer ni ko deqet ren di rey ko moom borom xam-xam boobee sant jaxate ni ko deqet ren di ni ko kon naa la mott li muy téeméer ginnaaw sawara dong laa jëm fa laa jëm waaye mu jóge waat fa xelam dalut ba tey rek muy jooy di wut rek nu muy def ba dellu ci yàlla mi ko bind moom ko nga yàgg mu laaj waaw ndax xamu leen fi kenn koo xam ni yaakaar ngeen ni bu ma fa demee dana ma orienté teg ma yoon woo xam ni danaa ma nekk sama borom ginnaaw moom du gedd ni bu doon gedd dana ma gedd ñu ni ah kay ñu ne ko gis nga boo demee dëkk sàngam da nga fa bekk borom xam-xam boo demee nga laaj ko ba xam ah borom xam-xam ba nag xëy na ndax mbay la sant xëy na mbay la sant ba mu ñëwee ni ko waaw yow sëñ mbayeen ah man de damaa jaaxle ci sama bopp ah lu la jaaxal mu ne ko man daal rey na juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent jël seen alal ah du déggoon nga borom xam-xam bu ñuy wax Mor Jaxate fële mu ne waaw bari xam-xam mu ne ah dem naa ci di ko laaj de mu ne ma sawara laa jëm ndax yàlla nee na benn bakkan donk ku ko rey sawara nga jëm ma ne ko comme sawara laa jëm na te sawara laa jëm naa la mottali muy téeméer. mun waaye teewul rek ba ma jógee foofa daal sama xel mi yàlla rek ci ne bëgg a tuub rek dellu ci yàlla ndax mu baal ma ma ndax bu ma tuubee yow sëñ Mbayeen yàlla dana ma baal mu ne ko waay bañ a baal yërmande yàlla ëpp loolu booy tuub mu lay baal booy tuub mu lay abaal a ah, léegi nag boroom xam-xam yi sant jaxate ni waaw sëñ Mbayeen mi daa ragal dee dong moo tax mu mu fatwaa waa ji ni ko booy tuub yàlla baal la daa ragal dee dong ñu sant jaxate daal di dal ci kawam ñu ko yow sëñ ba yéen da ragal dee dong nag moo tax nga dox fat waa ji ni ko boo tuubee yàlla baal la waaye xam nga ni benn bakan dong ko rey sawar la jëm ah ñi sant si la ñi déedéet sëñ ba yéen ñu ragalul deede daa islaam lislaam la dégg waaye ragalul deede ñu ni looy wax nii mu ne waaw waaw ragalul dee daa dégg lislaam ah sëñ ba yéen daal ni waa léegi da ngaa bëgg a tuub mu ni waaw mu ne ko acca wëndeelal sa xel nga xool ci addina bi dëkk boo mësta mooy yàlla nga dem fa soo demee na nga tànn xiyaaruhum mooy ña gën ca dëkk ba ñi ca gën a ragal yàlla na nga leen tànn jaxasoo ak ñoom ànd ak ñoom di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba faatu boo ko defee yàlla jéggal la de waa ji jóg soli dàllam mu jógee soli dàllam dëkk bu xelam yar mu ni xii fofu kay mas naa faa def aw jongalam diw mako ray jël alalam mu wëndeelaat xel mi mu dem ci benen dëkk mu ni mu yeen fofu kay ñaari jongalam laa fa def ah bu mujj xelam dem ci benn dëkk mu ne ah dëkk boobu moom wax dëgg musuma faa def dara nag naa dem ci boobu dëkk daal di aw yoonu dëkk ba ba mu demee ba jub dëkk ba feebar daane ko ci yoon wi mu daal di dee mu faatoo malaakay safara yi ñëw di ko jël si ngir yóbbu ko safara bañ dikkee ñu fekk fa malaakay àjjana ñu di ko jël si malaakay safara yi waay waaye yéen yéen ahlul janna lu ngeen di wut fii waay ñu ne déet yéen kay la laaj yéen lu ngeen fi wut yéen mu ne yéen xanaa xamu leen kii ñu ne ah mu ni kii rey na téeméeri bakkan kii fenn du këram fu dul safara malaakay àjjani déet bu leen gaawtuwaay yéen ëpp yàlla yërmande eh, kii yéen ëpp yàlla eh, ab dogal ah yéen xanaa xamu leen ni kii li muy bon bon bon rey téeméeri bakkan waaye terewul benn bis xelam dellu si ni ci yàlla mi ko bind te moom ko te yàlla moom du gedd du xeeb kon nag lim mujj a jàpp cim xelam dogu jëm ca ci loolu lañ koy atte yóbbu ko àjjana ñu ne fa di xëccoo suñ borom alayhi dal di yabal jibril alayhi salaam mu atte si leen jibril ñëw daal di fekk ñuy xëccoo mu ni leen léegi dogal bi mooy ay ca na ngeen natt diggante dëkk bi waa ji jóge ngir jëm ci boromam dogu ni day bàyyilu bon jëm ci yàlla natt leen diggante boobu ak diggante bi jëm ni bu dikkee fa lay fekk yàlla mu jatu di ko xaar ba baal koy bàkkaaram natt leen ñaari diggante yooyu diggante bu ci gën a jege rek ñu atte ko ca loola lenn ci boroom xam-xam yi dañuy wax sax ni diggante dëkk ba mu jóge woon di tuub si booba la gën a jege ndax booba daa génn dëkk bi rek daanaka xaw a faatu waaye ci xereñu yàlla ak bëgg koo jéggal tax na suñ borom puus dëkk ba mu jëmoon ba mu gën a jege waa ji fi mu dee ke dëkk ba mu jóge ndax yërmande suñ borom rek inna rahmatallahi waasihun inna rahmatallahi waasihun yàlla yërmandeem dafa yaatu moo tax kon crise di am ci wàllu économie wallahi bu ñu bëggee mu rek leew ay ca nañ fax wuti yàlla ni ko yàlla yow donga junniy milliards réglé wul crise bi junniy milliards ñaari junniy milliards régléwul wul crise bi fay factures yi réglé wul crise bi fay factures yi ndox yeeg courant réglé wu ko jënd ceeb réglé wu ko de xam nga lu koy réglé ñu dellu si ci yàlla ni ko yàlla yow dong nga nañ ci yàlla ni ko yàlla mbir mi du kenn yow rek du junniy milliards du ñaari junniy milliards yow léegi crise bi daal di réglé fayrus abal nu fayrus corona eh, daan ni abal borom neen rabbi sto jalla walaw annahum istalamu anfusuhum jaawaka fastaghfaru laa wastaghfara lahum ar لوجدوا الله توابا رحيما ما سورة النجاة سورة النساء رب ستو جل برم وقت sal leen seenu dàll ngeen dem ca ñama fi nekkal man yàlla xam nga booba yontu yàlla muhammad fi nekk dañ yeen jaam ñi bu ngeen defatee aw jongalang ñu naa mu ni dem leen ca muhammad sallallahu alayhi wasallam wahal ko waxal ni yàlla nee ko <clears throat> nañu jéggal te yow nga jéggalul ni yàlla nag ndax xaritam nga ñeel yàlla nu ñu jéggal te yow nga jéggalul ni yàlla sun borom ni loolu de bu ngeen ko defee da ngeen ma fekk man yàlla ma jatu di leen xaar bu ngeen ñëwee ma mbaay yalla leen baal leen la wajadu la atawaban raima suratu nisa kon nak suñu njiiti président yi nañ seen ñi fi nekkal yalla te nekk ga di lu wir ñi dem ci ñom ñi leen jéggalu leen ñu yalla wax leen yalla mu jéggal nu te ngeen jéggalul ñu yalla suñ njiiti réew yi nañ dem ci ñi fi nekkal yàlla ni leen jéggalu leen ñu yàlla ni leen yàlla nañu jéggal a ah, man nag bu ma leen doon conseillé dama leen di wax ni nañ dem ca daare alquran ya sëriñ daara yi nañ ca dem nañ ca dem ñu jël luñ mën a dëgale dongaam yi ay weeri weeri weeri weer jox ko donga amul bàkkaar yooyu nga xam ne bu yàlla ne xifeet yam ci ñoom boo demee ci saraari saala wax naa ko ba tàyyi danga ko ca fekk nee na saa yàlla bëggee duma mag ñi fudd seen digg dama yàlla baal nee na saa bu ko yàlla nammee bu nee gees yam ci donga yi ca daara ja rek ne uf am ngeen sens bu du woon gone yi ngeen xam lay bu woon don ya ca daara ja ngeen xam boo demee ci saraari saala danga ko gis nee saabu saa bu yàlla bëggee duma mag ñi rek bu xelam ne yar ci daara ji rek bu geesoo seen gone ya ñu nekk ci alliwaye di bindantoo ka yor jukki alquran ya mu ne ah am ngeen sens de wallahi bu du woon ak gone yee ca daara ja tey ngeen xam tey ngeen xam kon nag gone yooyu ci daara ji ñoo fi wuutu Moustapha alayhi salaam gone yooyu ci daara ji ñoo fi wuutu Moustapha alayhi salaam ñoo ko fi wutu de waaw yàlla xam na ko moo tax keroog ba mbir mi ne cocc ma ne acca gone yi kaay leen wut lu ma leen terale ni leen ayca wa kaana xaqan jàng ci limu kun matlabu sifaa jàng ci limu kun isnu labraar ila axir yi loolu nag ñaari kaamil alxuraan koy jiitu ba pare ñu door cee teglee def nañ ko ab diir biñ ko defee ab diir bu tegaloo léegi ñu di ko def rek par yor yori ajjuma yori aj yàlla na ci yàlla sukkandiku jëlee fi fayrus corona faw yàlla na ci yàlla sukkandiku dàq ko génne ko sénégal faw waaye yàlla na ci yàlla sukkandiku aar bépp sénégalais ak fu mën a ne ak fu mën a ne ci addina bi nag laa wax ak fu mën a ne ci addina bi yàlla na ko ci yàlla aar subhanahu wa taala yàlla na ko ci yàlla aar yàlla na ko ci dégg doy mhm. kon nak responsable yi nañ dem ca daara ya toroxlu toroxlu ca kanamu donga ya ñi leen sàkkul leen ñi yalla ci yalla njéggal te ñeen jéggalul ñu yalla it nak te neexal leen neexal leen serigne daara yi tamit nañu ragal yalla ba liñ leen jox ñi di ci teral gone waaye dëkkal say donga ca ndand foy foy nga xam ne daanaka daara ji doo fa fanaan dem luyeel sa benn appartement yaag sa soxna rek ngeen ne fay ndaataata la boo xëyee ñëw ci daara ji xool rawatina nag na yàlla baal ñi yalwaanloo seen donga yi xaalis waaw man d'accord ma ci du ma ci mës a d'accord donga bu yalwaan xaalis d'accord ma ci du ma ci mës a d'accord mhm. ab donga daal bu mënta ñàkk bañ a yalwaani la muy añe doy na ko la muy añe doy na ko la muy na ko mhm. waaw waaw am bu ñuy wax sayidina ayooba alayhi salaam wala yankooba la sax yonent yàlla yankooba mooy way juru sayidina yusuf alayhi salaam yonent yàlla yankooba dafa am fukki doom ak ñaar kenn kaa ngi tudd Benyaam kenn ki tudd Yuusuf seen fukki doom yi bàyyi yële ni ñoo xam ne ñoom gëmuñu yàlla ni ma ko waxe woon biñ séenee seen ñaari doomi yi ñu gën leen te dogalub yàlla muy Benyaami ak Yuusuf ñun lañ leen sacrifié kan lañ jëkk a sacrifié mooy Yuusuf lañ jëkk a sacrifié doomi bàyyi jooje di Yuusuf moom lañ njëkk a sacrifié ndax lan seen nañ ko ci seen kanam rek mu gën leen wala mu ëpp leen mbooloo wala moom lañ gën a déglu wala moom lañ yëpp xam ñu ne ko nag du fi amee daal koy sacrifié waaye yàlla nanguwul bu xaaba buñ xamoon dem nañ ca bu xaaba buñ xamoon rek dem nañ ci rek ni ko ñaanal nu yàlla rek suñ rakk ji yàlla sacrifié ko rek suñ doomi bàyyi ji daal nañ ko éliminé Ah, waaw yéen lu tax ngeen bëgg ko éliminer muxaabir bi moo leen ko laaj kat waaw lu tax ngeen bëgg éliminer yusuf ñu ne ah mom daa nuru bàyyi lool ku ko gis defe ni bàyyi dafa niru bàyyi nit ñi dañ ko jublu sax moom sacrifier ñu ko rek loo ñu laaj ñu jox la ko ah waaye yàlla faru leen yàlla nee na bu ma rëddee nga far ma rëddaan nga far ne daa lay far ba nupp yow rëdd ci sa kaw subhaanahu wa taala rabbi sit wa jalla jalaaluhu bu ma rëddee nga far ma rëddaat nga far nee na dama lay far yow ba noppi nag rëdd ci sa kaw yow yusuf alayhi salaam niru gi mu niru baayam te saahir ci baatin doomi bàyyi añaanee ko ko dal koy sacrifié waaye nag bañ demee ba xam ni yàlla nanguwul seen dogal boobu ak seen yéene ja amuñu benn complexe ci dellu si waat dañoo ñëw ci seen baay ni baay ay la yéwén nag lu xew ñu na lu ñu na xam nañ ni boo ñu jégaluwul yàlla it yàlla danañu duma ëllëg kon jégalul ñu yàlla rek ay la yéwén lu xew ñu na suñ suñ rakk ji lu ko dal ñoo ko teg ñoo ko yóbbu ci boxaaba bu ne suñ rakk ji boxaaba bu ne ñoo ko fa yóbbu nag neexul ba neexul lu xew ñu na nag waaw awaaw ah, lu tax ngeen yóbbu ko ci boxaaba muy bañ mu gën ñu rek ak ñépp wuti ko rek dëgmal ko rek ndax daa niru bàyyi alquran bi ñu ko nettali xaalo ya abaana astaghfir lana dunubana inna kunna xaatihin wallahi dañoo juum rek dañoo juum yàlla yow bàyyi waxal nu yàlla ni ko dañoo juum rek dootu amati kañaanuk doomi soxnaa ñu jàpp rek waaye dootu amati mukk xaalo ya abaana astaghfir lana dunubana lu tax inna kunna khatiin kañaanuk doomi baye ñu japp rek kañaanuk doomi baye ñu japp rek ñu nodd takusan di allahu akbar kañaanuk doomi baye dong nga ñu japp waye duutu am de seen baye ni len khala sawfa astaghfiru lakum rabbi ba baxna dana danaa ci diisoog yàlla ba xam waa baax na ci diso sawfa astaghfiru lakum rabbi ndax inna huwa xafurun rahim danaa ci diisoo moom ndax moom ku bari yërmande la moom du jàppal kenn dara moom du geddi donte nag li ngeen def dara baaxu ci waaye dinaa ci diisoo moom rabbi isiti wa jalla jalaaluhu hmm, alxuraan alxuraan a neex alxuraan yi dëgg alxuraan a wér wallahi alxuraan alxuraan a neex alxuraan a wér alxuraan yi dëgg amul benn situation buy gaar lu li alquran traité na ko ba teg ko à côté ñu noddu tàkkusaan bi allahu akbar allahu akbar sayidina muhammadun rasulillahi sallallahu taala alayhi allahuma rabba haasi dahwati taamma وصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا ليس وحد ربنا ما خلقت حسب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار kon yont yàlla ayuba alayhi salaam kii yankoba alayhi salaam bi nga xamee ni ñoom doomi bàyyi yële di fukk kereel nañ seen doomi bàyyi muy sayidina yusuf ak benyamin bala ca xew-xew ca waaye gis nga ñoom reconnaître nañ ko nangoo dellu ci yàlla subhanahu wa taala borom dana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa saarixoo ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha zamawat wal ardu uhidat lil muttaqin waxal ma sama jaam ñi nii leen saa buñ defee aw jongolong nañ daw njëkkalante sama yërmane ndax man yàlla duma xeeb duma gedd te man yàlla sama àjjana ya moo gën a yaatu juróom-yaari asamaan moo gën a yaatu juróom-yaari suuf te waajaluma ko kenn lu dul ñi nga xam ne nii dañ maa ragal ba saa buñ ma tooñee seen xel dellu ci man ñu ñëw dellu ci wat ni ma yàlla yaa fi ne yalla baal nu xam ngeen yent yalla adam alayhi mi nga xam moy amul abul basar keroog ba nga xamanteni ni amna kiris bu dal ci kawam ndax yalla da ko bind dugal ko aljana ñu ko àjjanaa ngi ni ndey jor ak càmmoñ fo gis la lu neex sañ ko koo waaye nag wala taqaraba haasi sajara yaag sa soxna si lu àjjana neex neex lenn képp laa bañ ngeen laal ko fi mooy garab gi baal leen ma ko fi garab gi baal leen ma ko xam nga garab gi lan lay symboliser mooy kennu yàlla gi xoolal li ci àjjana yëpp suñ borom ni aadama yaag sa soxna sañ ngeen koo jariñoo waaye nag bàyyi leen ma fi garab gii garab gi lan lay symboliser mooy kennu yàlla mooy aadama sa ngeen a def lu nekk sañ ngeen a jaamu ku nekk waaye sañ ngeen a euh, lekk lu nekk sañ ngeen a naan lu nekk waaye sañu leen a jaamu kenn ku dul man ku leen neex diir leen ko mbagg waaye ba mu des man mii fala taqraba haasi sajara garab gi lu muy symboliser mooy kenn yàlla gi kenn xool ajana ni mu rek yàlla genn garab dong mu ne ko aadama yaag sa soxna bu ko laal mooy sama nguur gi bàyyee leen ma ko sama sañ-sañ bi bàyyee leen ma ko loolu lay symboliser li ma moom bàyyee leen ma ko reconnaître leen ni man yàlla rek may yàlla subhaanahu wa taala lool la garab gi di symboliser waaye gis nga iblis nim bañe nim bañe ko kennal yàlla iblis nim bañe ko kennal yàlla moom li bëgg mooy foo toll di wutal yàlla nawle rek moom iblis di wutal yàlla nawle rek moo tax mu ñëw jaar ca gannaaw ni adam mu ne mu ne ko xam nga lu tax yàlla ni la garab gi bu ko laal nga mu ne ko añaan rek yàlla daa añaan rek xam na ni booy lekk ci garab gi dootoo génn àjjana abadan xaalidina fiha dootoo ko génn lol dong nga tax mun la bul laal garab gi te booy de li ma la wax acca musal garab gi xool boo ko musee dootoo génn àjjana moo def saay saay te boko ko musee dootu genn aljana ad sayidna adam ni sii loolu worut dana mat ak da mat bul jox sa loxo loolu worut be ah sayyidatuna awa jog ni ko loolu wóorut mooy waxi lan yow ya, fi ne bala fi ngay nek di fu la ba yalla genn nu aljana rek nañ lek ci garam gi nga nan lan ginaaw ko ci lekk dootoo genn ñoo koy faral di wax bari na goor gu kepp kees soxna sa de goor gu kepp kees gis rek lu ci gëna bari soxna sa waaw na ma soxna yi baal dégg ngeen ngeen ma baal waaye bari na góor gu képp kees soxna saa de ah damaa taxaw xam ngeen am defe naa dama ko doon bi may jàngale majalis barki démb laa ko doon nettali gone yi bi may jàngale masalik ba agsi ci mbirum balxaam ibnu baawara bi nga xamante ne yont yàlla Moussa jógee na Égypte di ñëw te waa eh, Égypte ni ko Moussa bu ñëwee day nangu dëkk bi ñaanal na ko yàlla alkane ndax moom yàlla da ko joxoon ismilahi lu mu ñaan yàlla def ko léegi tur yàlla wu ko yàlla joxoon nag mu bëgg ñu ñaanal ci yàlla Moussa alkande mu ni hii Moussa yonant la duma ko ñaanal alkande yonant yàlla la soxna saa jóg taxaw ba gaay indee ñetti àndaari wurus jox ko bal am ni ko ñaanal nu alkande Moussa mu ni mukk yonant yàlla duma ko ñaan soxna saa jóg taxaw ni ko yow xanaa da ngaa dof ñun bañ juddoo ba léegi sombi la ñuy reere ak doxi mbëpp ñu andi la ñaari àndaari wurus nga nar koo delloo ñaan rek ay ca ñaan mu ni ah bañ a ñaan mu ni ñaan rek ba la leen ci fekk fekk leen ci waaw ba la leen ci fekk aadama it alayhi salaam bi nga xam ne suñu borom nee na ko falaa taqrabaa haasi jara garab gii bu leen ko laal ndax day sémbule si sama kenn gi man yàlla aadama alayhi salaam soxnaam sa xawaa ni ko des nga nañ lekk ginnaaw buñ lekkee duñ génn àjjana nañ lekk rek ah, ñu daal di lekk buñ lekkee rek yàlla indi leen benn kiris waaw crise boo xam ne économie la mooy amatuñ lu ñu sol amatuñ lu ñu lekk ndax garab guñ waaxu jëm ngir bëgg a lekk garab ga daw ba leen fa yére yuñ waaxu jëm bëgg koo sol yére daw ba leen fa ñoom ñaar ñëpp ñu def peppum kese borom xam-xam ne nee nañ fuddan daal fuddan fuddan rek moo dogu xaar leen fa ñu ñëw dagg ci ay caram taf ko ci seen yaram fuddan fuddan daal leen suturaal keroog garab gi ñuy tudde fuddan mhm. moo tax fuddan euh, euh, lislaam tagg na ko wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am solo waaye ana ñoom lu leen génne ci crise boobu crise économie boobu lu leen ci génne mooy dellu ci yàlla ni ko yàlla lu ñu dal njuumte doo nga nu ko yóbbe waaye yëbu la lu ñu dal njuumte rek ñu ko yóbbe waaye du du caaganu dañ laa yeb de قال ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والله dañoo juum te boo ñu toppee ci suñ juum te lii kiis bi ñu dal ci la ñuy dee boo ñu toppee ci suñ juum te lii kiis bi ñu dal moom la ñuy deewaale yàlla bu ñu topp ci suñ juum te li jéggal ñu xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin nga suuratu ahraaf bu ñu topp mukk nag suñ melokaan mi dañoo juum rek yàlla baal nu rek yàlla ni kon nag baal naa leen baal naa leen waaye nag il faut mu am lu leen coûter mooy faw ngeen wàcc ci suuf nag di sonn nag acca a bitoo min xaa ngeen di wàcc ci suuf léegi mhm, ngeen di wàcc ci suuf noonu suñ borom waxewoon woon fële ni dem leen ci yonant bi ñi ko jéggalul nu yàlla te wax yàlla mu jéggal nu noonu la ko waxe jigéen ñi tamit sun borom nee na yonent ya, bi sallallahu alayhi wasallam wastaghfir lahunna allaha inna allaha ghafurur rahim jigéen ñaañu ñii mu ne mu ne ñoom it dañuy def aw jongolang de mu ne ko waaw mu ne ko dee leen jéggulul yàlla del jéggulul jigéen ñi seen borom ñee ba jaayanteeg yow ba nuppi yàgg nañoo def aw jongolang mu naa jéggulul leen yàlla rek neel yàlla baalal jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam waaw mhm. wallaay fii ngay xamee ni yàlla am na jaam ñoo xam ne saa bu intervenir yàlla ñëw waaw saa bu ñu intervenir rek yàlla daal di d'accord <coughs> mhm. yàlla am na jaamam ñoo xam ne saa bu ñu intervenir yàlla d'accord rabbi sit wa jalla jalaaluhu yàlla nañ ca boole yàlla nañ ca boole mhm. yàlla nañ ca boole kon de sëñ jeexul xanaa bu dimanche mën nañoo continuer ba tey mawdu bi ñu doon waxtaane te mooy ñu tudde tawba wala xalul jaay atu corona meilleure solution ci crise économique bi am incha allah yàlla dogale te yóbbuñu ca ñu continuer ko incha allah di leen ndokkeel te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan fu ñu mën a toll rawatina nag ñi nga xam ne ñooy auditeurs yi euh xasido online waye particulièrement nak ñi nga xamni ne auditeurs yi min hajul abidin ila al janna seen taxaway bég nañ ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ku ci melni Serigne Cheikh Diouf nuyu nañ ko di ko ndokkel ok Serigne Cheikh Sow Cheikh Sow Cheikh Sow ñing koy nuyu te di ko ndokkel yóbbante bi mu joxoon sëñ Muudu Mbay Caam jot naa ca sëñ Muudu wax na ma lépp yàlla na ko yàlla nangu def ko ca téere jëf ndax xat-xat yi ngeen nekk ah wax dëgg yàlla doyoon na sëkk xalaat doyoon na sëkk ab taxawaay waaye rawatina nag seen xel di dem ci ñun ba seeni addiya ngeen diñ ci xalaataale loolu suñu borom rek am seen pay yàlla na leen ko yàlla fay ku ci mel ni sëñ Moustapha Mbeng moom tamit noonu la nee na mi ngi étali googu moom lay saan keroog bi moo wooyee jot ma ànd ak mbégte di ko ci addiyaam di ma ko jox loolu yàlla na ko ci yàlla fay ko saalika sëñ Cheikh Diaw comme ndax dellu na wala déet moo fi ñëwoon ci jamono yële te indi woon fii ordinateur bi ñuy defee waxtaan wi mel sëñ Muudu Gay te euh, ñu koy wax sëñ Gay euh, ak soxnaam ñoom tamit ndeysaan ci jamono yi la ci gannaaw rek diggante woon nañ bañ eh, boole woon fii ak seen rakk bu jigéen defe naa wala rakk soxna fekk boobu da faral di dégg moom soxna si may wax di tudd maama jong jigéen boobu nga xam ne kenn la woon ci ñi daan jàpp ci daara ji yàlla dogal muy liggéenti ba am numéro bi eh, ci la ma wooye ànd ak kontaante ñu leen xamal ne fàttewuñ ko incha allah ñu ngi leen di ndokkeel ci loolu suñu wëlëri wële euh, buggul pen moom it ñu koy nuyu xam ngeen ko dëkk fële ca Thiès di ñaan yàlla su borom gën a dolle yokk ma waa juróom wa dolli ko njëggal incha allah moom buggul moom ñëwoon na ba fii ci daara ji daal ah, man dey li wolof njaay di wax naan euh, maa gis maa gis du bokk ak maa dégg لما جيس في تي دارا جي بينما ما دخل سما تانك با نيو في واي نك سما دولي بري واي ان شاء الله ربي فسنا تي يني دوغال سما لوخو لاي نيم كو تي نوكل بو باخا باخ سين محمد جالو مامي سولو ولا ري ني نانكو نكو يي ملني سين ابراهيم دابو ني ندسان ديمب رك ني ني وو يال ني يالا جيهال جافا جافا يا فاو ان يالا جيهال كو فاو ني واخ سون بروم نيكو اللهم يسر ولا تخسر اللهم يسر ولا تخسر يا رب يا ربي اللهم أرحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اللهم أرحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا علينا إسرا كما أملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي suñ borom mën na ko yàlla na ko def yàlla na ko def ndax moo wax ci téeréem ba nii seej alallahu baxda usri yusra seej alallahu baxda usri yusra ak inna ma al usri yusran fa inna ma al usri yusran tëlewu ko yàlla na yàlla jeexal jafe-jafe yi te sàmm leen aar leen ba kenn ku nekk delluwaat ci liggéeyam te ñi ngi rafet njort ci ni situation yi buñ ci génnee noonu ko suñu borom waxee ci alxuraan ah lay ñëw ca kanam mooy dàq kon nag suñu borom mën na ko am na ko yàlla na ko def yàlla na ko def nañ ko nangul rek ni mooma rek lu mën a xew nañ nangul ni mooma rek suñ ko nangulee rek incha allah lépp dana baax. kon nag ndokkeel nañ ñëpp gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ndokkeel communauté atarixatul muridiya wal muridat la siyama usratu maam Thierno Ibra Faati Mbàkke radiallahu taala anhu fi daaril mu'ti ñu ngi leen di ndokkeel ci nisfu saabaan bi nu dëgmal di raconte boo xam ne na diggante seyxinaa wa wasilatinaa wa xabibinaa si ahmadul bamba radiallahu anhu ak rakkam ju tedd ja gayndag lislaam ga jës yi lislaam ja sang boobu nga xam ni ginnaaw yàlla bu yoonu murit dee folate ba nëgëni loxo ma nga ci biir ni ma ko yàgg waxe ni cerno rek mooy koo xam ne lum ni bokk na ci yoon wi ca la bokk waaye cerno képp mooy koo xam ne lum ni bokkul ci yoon wi loola bokk ca lu ko ko may mooy daa fekke min al awal ila al axar dara ump ko ci kon ñoo ngi ndokkeel usratu cerno ibra fati mbàkke radiallahu anhu jamian ci bis boobu nga xam ni moom la ñu dëgmal euh, barki démb rek sax ndeysaan kenn ci taalibey maam cerno euh, di ku baax sama xarit la yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd barki dem rek ndeysaan dafay daal di indi ñeenti naatam andil ma ko ni ma lii daal maa ko barkeeloo ci màggal gi kon ñu ngi ko ci ndokkeel ndeysaan ñu di ko wax Moustapha Ndoye euh, keroog bi mu jógee jëm si fi man fekk yàgg na ma dégg ndeysaan yàgg na ma dégg moom laa wax ni moom moo jëndoon otoom ñëw ni ma oto baa ngi nii ci sa disposition foo bëgg a dem jëlal waaye lu jiit loolu keroog ba mu jikk jikk sanc naa daar ji fii mu ni comme tuxumaa sori lool na fi ñëw mu am ko mu dajal mu ni ko foo jëm mu ni daara Moustapha Mbaye Sam mu ni ko wi waaju tàng jooju malaaka la kooku day mun leen a def mu ne ko waawaay man lu man a xew naa dem rek su ma fasanteeg moom wëllëri te gis lu ma xam toog ma gisul lu ma xam maa moom saytaan ma bañeete dem mu ne ah, baax demal <laughs> ndeysaan ñuy dem di dem di dem ba am at ak bu ma koy nettali nag bu ma koy nettali mu ne ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la meloon soo ko déggee da nga koy ragal ni gaynde waaye gis nga boo jaxasoo ak moom di jëflanteeg moom dootoo ko bëgg a baax ndax melawa dootoo ko bëgg a ba ndax melawa defe naa Cheikh Fall mos naa am jenn jigéen ju nekk France xumatuma Italie ju amoon ay jafe-jafe mu ne ko wool sëñ Moustapha Mbaye Sall wax ko ko mu ne ko yii malaaka moom kooku kay du ñeme moo ko wax dara mu ne ko pourtant soo ko woon ba wax ak moom ah solution mën naa am de ndeysaan bi yàlla dogalee ñu jokkoo ba wax ma mbir ma ba yàlla dogal ci lam cey dogal ba lam ci bëggoon lépp jàpp bi lam ma jëkk wax mooy keroog bi may wooy billaay day loxo loxo loxo ba daanaka mënta wax ndax di lux rek ma ko nag man kenn laa ci jaami yàlla yi rek kenn laa ci jaami suñu borom yi rek la yonent bi waxoon ndaw sa ba mu ñëwee jub ko ndaw si di lux di lux di lux mu ne ko eh xanaa xamu man maay jaamu yàlla bi daan lekk seeli gëléem yoow yi fii man mii dalal dalal mhm, dalal lii ñu sëñ Tuubaa radiyallaahu bu masaana soo ko masaana gis te indiwul melaw yërmande wi moo gën a raglu gayndeeg ñaloor moo gën a raglu gayndeeg ñaloor radiallahu taala anhu mhm. moo gën a raglu gayndeeg ñaloor kon nag ñu sant yàlla di julli ci Musa alayhi salaam sant leen ndokkeel leen ñaanal leen di sàkku ci yéen ñaan diaspora bi ñëpp nuyu nañ leen ñu kenn góor jigéen mag ndaw yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen yal neen yalla musal ci coronavirus bi ñu koy ñaan yalla ci war may sun sëriñ ba sëñ Touba ah momit mu jo tegal ñuko ci loxay sangam ba Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu salam kon nak sëñ modou alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa